dëkkandoo ci Aziz Dabala waaw maa ngi leen fay bu baax a baax a baax di leen seen wàccuwaay euh, di leen ziyaar yéen ñëpp nag rawatine nag sama frère yi ma fekk ak sama sœur yi di leen jàlle nag li ñu bokk mën naa ko jàll suma bopp waaye mën naa ko jàll famille bi yëpp nag ndax Aziz sama rakk la woon mën naa ko jàll sama bopp jàll ko képp koo xam ne doomi ginnaaw raay waaye pour man Aziz nekkatul doomi ginnaaw raay international la la dana ko bokk ñun ak international yëpp dañ ko bokk ñun ak pays yi nekk suñu ginnaaw yëpp kon maa ngi koy jaale képp koo xam ne rek eh, yaa ngi ci àdduna man ngi day jaale dee bi nga xam ne mooy Aziz Ba sama rak sama xarit waaw metti nag xam nga ñun ay nitu média lañ moomuñu suñu bopp beneen bi ci des ñu ngi dakkante dàkkanteleeg beneen tur muy influenceur euh, ma àndoon ak sama nit nag dem Touba ñu koy wax Fatou Kiné Gueye honorable député Mame Diarra Fam boole ma nag moom ma teel a dem Touba euh, loolu moo tax bi muy am fekkuma fi waaye man xam naa ni sama ji da doon tàggatoo ak man ndax une semaine ñu ngi ko nekk répétition ak Pape Marie euh, bi muy tëgg guddeem gi mook Sabel mag moom ñoo nekk répétition soo dee xool euh, vidéo yu bëri sax dama ko dugal ndax euh, bi muy répété yëpp vidéo yu bëri maa ko doon jël su ma ko jëlee mu yuuxu ni ma mag ji lii lan la lii ëpp na euh, ma daal di jëlaat ni ma dimbali ma filmer ma bu ko defee ma filmer ko mu nekkoon nit ku baax fan yooyu nag ma def ak moom ay takkusaan dafa nekkoon retrouvaille boo xam ne image bi mënul dañ ci man ba koroog bi mu ñëwee Sorano Grand Théâtre Euh, ndeysaan mu pare chorégraphie bi mu ne ko mais mais rakk ji lan la lu xew comme ndeysaan ñu ñëpp c'est la famille mu daal ma ma man sax xaw ma lan la euh, euh, noonu ñu ko fante ma ne ko mais grawul toj nga dëkk bi yokkaatal waaye nag am na tuuti paa yoo bàyyi ndax man dama doon gis répétition bi nga di ko toj kon macha allah bi ci des nag guddi yi nga xamee ni nattu bi dal nañu guddi yu métti la waaye ay guddeem la woon ndax sénégalais yi ci lañ gën a xam kan mooy Aziz Ba nekkoon nit ku baax. soxna ay jege ñaaleem mel ni Nabou euh, woon ko loolu ban impression ak ban commentaire ci mën man guddi guddi ginnaaw raay man sama tiitar ginnaaw raay la man sama àdduna ginnaaw raay la ndax fii laa juddoo benn kër bu ñuy wax kër euh, Ngone Dem kon man sama lépp ginnaaw raay la. man daal euh, su ma sañoon fii sama xol toll ak ni ma feese lii sax mënul ñàkk ndax ko xam maa sama sama xarit la ku xam na koy kees itali xam ne sama xarit la ko xam sama sœur yi xam ne duma leen dawal dara mais lii sax tey du sama wàll ndax man fii laa juddoo man métti métti ginnaaw raay mooy sama métti métti euh, beneen li ci gën a métti mooy ñun ñëpp c'est la famille am na foo xam ne nag moom mënu ma fa dugg ndax maa ngi woon Touba dëkku Serigne Bamba bi. amoon nga ay rapport sama rakk la est-ce que est-ce que mérité woon bu ñaaw bi nga xam mérité wu ko man dama nekk moom nee naa la sem euh, semaine mujj yi nga xam ne spectacle bi mujjee joué man ak moom ñoo nekk waxtu du ko raw nit ku jullite nit ku bëgg doomi ginnaaw laay nit ku bëgg fameem man daf may tiitaroo. li ma mag ji loo dugal dama koy suivre kooku kuy tiitaroo Fama fay Guewel yaa ngi tiitaroo képp kuy doomu banlieue kon kooku méritowul lii kuru aji sax méritowul caxat caxate waaye nag dama yaakaar ni kooku moo bëri bàkkaar rek waaye Aziz yaakaar naa ni lii nga xam ne moo dal ci kaw Aziz ak ni ko sénégalais yi bokkee ak ak nit ñu baax ñi war na mën a xam ni Aziz daal nit ku baax la ndax yàlla nee na sa rob rek buñ lay yóbbu rek fi nga xam ne mooy këru dëgg gi dafa konte ay quelques nit yoo xam ne buñ ci bokkee yàlla mën na laa baal rawatina nag mbooloo mi ànd ak ak Aziz Dabala ak ñi ngay xam ne ñoo xëy di ko ñaana Aziz Ba ma di ko jaale di jaale waale ki nga xam ne mooy waali ndax bëgg gum ko bëggoon moo tax yàlla boole leen moo tax gis nga mbëggeel bu sincère laa la wax dafa am solo ci doomu waaw est-ce que mën na nga xam ndax euh, waa Kër Nabou Leye ñëw nañu ci njaal bi ndax euh, li ñu war a def yëpp vis à de li ñuy def ci famille bi ñu ngi koy def ba léegi euh, compte tenu de peut-être yenn commentaires yi ñu ci dégg. frère man ku ma xam xam ma ni noble laa duma wax lu dul wax gor bi ci des mooy leneen lu ma la ci wax ci ndax ñëw nañ fi wala ñëwuñu fi damay fen mhm. sama rakk yi ma may nag lii ma may leen ko nii dafa mënul ñàkk. nee naa la man bi dese bi di am Touba la ma fekk ndax dama teel a dem liggéeyi Touba ndax man dama amul kenn ku du sama yaay honorable député Mame Diarra Fam muy doomu ginnaaw raay di sama ndey kon su ma yónnee rek damay dem te damay yàkkamti feer mu yónni ma ci nit ma dem kon bi dese bi yi am man fekkuma fi xaw ma nag fi leen ko fekk fi leen koy bàyyi te leneen lu ma ci wax waxuma dëgg ñun ñëpp c'est la famille ndax sama rakk la. mais sànq sa biir wax da nga guddi guddi euh, ginnaaw raay. waa nga gis ni que affaire bi impliqué na waa ginnaaw raay ndax boo xoolee seen biir la en tant que nga nekk seen sœur yow loolu lan la lay def ak tamit bi ñu bi ñu waxee ni ñoom ñu ngi si mandat de dépôt. xam nga xool du ëmb nañu koy bañ koy bës man ko xool sama image xam ni nga daan gisee Fama Faye ak tey duñu benn bi may ñëw sax bëgguma nit xam ne man la sax moo tax dama takk verre rëy pour bañ ndax naqar laa nekk dañu nekk ci tiis. ndax lu ñu tudd doomi ginnaaw raay rek lal na ñëpp waa tamit nag ñun guddi guddi ginnaaw raay man sama baay fii la njëkk am titre foncier étage bi fi njëkk tabaxu ci ginnaaw raay nit ñi di ko joxoon sama baay moo ko def kon kon man fii rek laa am fekkewu ko waaye lu ñu doomi ginnaaw raay rek ñun ñëpp ñoo am naqar waaye nag euh, seytaane fu nekk lay dugg te ñëpp lay dal natt moo ñu dal rek te yàlla na fit jam ba bum dal ñeneen waaye Aziz daal nit ku baax moo dem. te ko xool bisam yi xool li mu tombeel 18 safar bu Sëriñ Bamba te nañu ko lii am mu nekk metti metti ñu boole ko ñu ni suba la màggal Touba bisub Sëriñ Bamba nga xam ne ñaan ngi Sëriñ tubaa moom foo nekk rek ñaan ngi fekk la fa ñu jël ko yóbbu ko néegu Pikine kooku mooy doomi banlieue kon doonu ko mës a fàtte naqar la ci man naqar la ci doomi ginnaaw raay yëpp ndax koo ci xaar xolam rek buggatul dara léegi sax am na ku ne ma ndax danga nga euh, faama fay la la ko dama bëgg a dem Mali ndax des fois am na yenn yoo xam Mali rek la xaj yàlla mën na lu nekk merci beaucoup maa ngi jégalu nag kàddu yi mënut a gudd benn question rek benn question bu mujj gis nañu Aziz jot na feccal façon artiste bu nekk depuis dëj ba léegi tetu artiste yi nga xam ne ràññee nañ leen fi néew noonu loolu ndax loolu euh, euh, euh, rafet na ci jëmm Aziz bi nga xam ne feccal na leen guddil na leen bëccëg na leen bëccëgal na ñu naa la maa nekkuma foon dama demoon mission Touba mais loolu jaaduwul gis nga nit ki buy ànd ak yow ci bi muy dund di la gunge su deewee danga kaa war a gunge ci gis nga lu tax ma fonk om de tenue dama leen fonk laaj ma lu tax boo génnee àdduna te bokk ci seen deret walla nga bokk ci ñoom ah dañu lay defal loolu nga xam ne mooy waxtaan wu mujj sa diggante ak ñoom kon ñun dañ ko war di deflante ñun artistes yi Aziz artiste bu ci nekk rek lebal na la lu baax xam nga luy lu baax ni ku mu lu tam yoroon na mbubu artiste boo xam daan na wuyoo ne man sénégalais laa te artiste laa kon ñëpp ko war a ñëw jaale si te maa ngi ñaan bépp artiste bu ko dégg Aziz du fecckat kese ndax waykat bi mënut a dem sans fecckat bi fecckat mënut a dem sans musique ndax bu musique bi takkul du fecc bi ci des mooy loolu tourné ko beneen liggéey la woon boo xam ne daka daan sol casquette mais su ñëwee daka daan summi wane ni man fii mooy sama dëkk fii laa am. may wax ni daal ku ko dégg war na ko mën a ñëw jaale ndax man bëgg ngaa jéggi dëgg bis moo fi jege woon yàlla na yeex ragaluma dee nag ndax amatuma ndey amatuma baay bis moo fi jege woon bëgg naa ku ma seqal ak di jàmm rek na ñëw seedal na li ñu séq muy lu baax ndax man lu baax rek laa xam te lu baax rek laay wax kon képp koo xam ne dégg nga ko guddul artiste sax ñëpp naqarlu Aziz Dabala rawatina ñun suñu musique seen réew ku baax a dem bi ci des nag muy cité kenn kumba gawlo démb dama jooy ba ci yàgg ma xam ne gawlo rek la mën a doon kooku noo bokk maam ci Tiwaawan dama ko xool rek dërët yëngal ma dama jooy nit ku baax témoignage bu rafet ak Aziz ndax nit ku dem ba pare ngay teg ci leneen ci daraam rafetul ndax bi muy dund est-ce que ñemeeg na ko wax kon nanu nanu maytu yu bari di wax nag euh, Kumba Gawlo merci beaucoup ci témoignage yi ndax man su ma dee artiste tey tey sa baat benn baat bi ma dégg nga wax ci Aziz permettre na ma man Fama fay ma dem ànd ak yow ndax waykat nga man may artiste ndax xam naa ne tey bu ma fi jóge woon di nga def témoignage yu mel nii kon nit ku baax la may jégalu ci kàddu yi mënatuma nag ndax lu lépp tuuru merci beaucoup maa ngi jégalu ñëpp di ko jaar yéen ñëpp nag yéen it yi bokk ngeen ak ñun naqar bi yéen boo leen am woon ci réew mi ñu wari leen dañu wax télé yi nit ñi seetaanatuñu xaaratuñu télé yi télé ci poche maam mais yéen yéen a ngi ci tiktok bi yéen a ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax yéen a ngi fësal ñoo xam ne mënuñu woon xam li xew kon boo jërë ngeen jëf jaaraama yéen waaye nag maa ngi leen koy jaale ndax ñu ñëpp ñoo bokk Aziz Ba sama rak sama xarit merci beaucoup ci kàddu yi. mbokk yi borom naaru góor yegg si na kii tax gannaaw sunu borom bi. seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt kooku mooy kan mooy Seydina usmaan Ndiaye boroom naaru góor grand marabout di borom baatin borom xam-xam ak borom xalwa Seydina Ousmane Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor Seydina Ousmane Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bi ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari naarigóor naarigóor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di toll nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane Ndiaye naaru góor borom xalwa borom kurus mi ngi fii ci Nord Foire à Dakar arrêt 34 jàkkaarloog terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkaarloog banque CBAO bi Merina ci wetu daral bi mën ngeen a jokkoo kabinem ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19